voilà parce que. direction de la comptabilité publique par exemple. Euh, voilà ñoom ñëpp dañuy dañuy méngale quand même day am harmonisation données waaw xam nga boo xoolee ani génn am période boo xamante ni parfois daan na am quelques décalages. ci yenn institutions yi ban doon waxtaan gouvernement bi une communication ban ko seetaat. parce que mun leen am nekk même gouvernement war a am les mêmes données kii bu waxee fii kii wax jëm fële. voilà te fan yi passe aussi gis nañ fi benn euh, au fonctionnaire boo xam ne bon au cadre la bo xamante ni na DPE je pense que entre 5 et 8 ans euh, dégg naa sax mu ne il il leur parfois ñu ne leen def leen nii def leen nii directeur bu fi nekkoon da doon bañ ba mom di joxe ay bu ñëlee waxee sen affaire mom mu def confiance am génn aussi ay données comme quoi mom scientifique la ci li lay yem. est-ce que Sénégal c'est possible ñu falsifier sunu ay données officielles. en tout cas xel war ko daj.

Euh, scientificité ou données yi rek. waaw jëfandikoo waaw xam nga na fekk rek ka kay ki ki liggéey mbir mi. ànd ak toujours éthique et déontologie xamné mom scientifique la dañ ko fay tek pour mu doxal ay mbir scientifique deful leneen. mais bu leen dem nga ci réew mo xam ne tollu toog toog nañ ba tollu fo xamanteni bi bii daanaka ci poste yu bari sax pour nga espérer tok fa. faw nga yëngatu ci mbirum politique et que par ailleurs da nga dem ba mujj gi sax daanaka sa ay performance électorale mu ëpp solo sa ay performance yi ci fan teg nga fay liggéey réew moom lu nekk possible na waaw bo <laughs> lu nekk possible na mais ñun tam dañu am ñu ñu ko mm, séqal waa banque centrale waa UEMOA waa UMOA waa FMI waa banque mondiale wa euh, fi ñuy dem marché financier yi dem di mhm. lever xaalis mhm. euh, banque privée yi ñuy lebal xaalis mhm. mais ñooñu ñëpp mënuñu leen dribler docteur loolu mënu ñoo ah, ñooñu ñoom ñu wax dañuy politique non du tout du tout du tout mais ban banque ngay ngay moo lay moy nangu mais li nga li ngay retenir d'abord ci base bi moy ne ñoo ñëpp bu nente ñu ngi li ak un gouvernement souverain waaw données yi leen gouvernement mettre à leur disposition moom la ñu exploité. ah mais ñoom tam dañuy am seen déet ñoom duñ def loolu rek de ñoom tamit dañuy am seen ay ex experts yoo xam ni li ñu leen di jox dañ koy càmbar. dafa mel ni banque rek tey ah, boo demee. bien sûr doo ko jox n'importe quel. bien sûr document de. waaw mais xam nga bu dente ne yaa ngi am parce que li ñuy wax souveraineté d'un pays souvent bon parce que li li ma wax li ñu wax noonu daanaka c'est des choses tellement rarissimes parce que pour man sax. voilà exception la de. très bien ñoo ko fi defoon. te boobu ba léegi. gars yi ñu gën a jël seen ay matukaay bu baax ni lii doot fi am.

j'aurais bien préféré euh, données yi ñu wax noonu après ñu dé décortiquer ko maanaam toj ko. dans les dans le bon détail yow mii est-ce que jox nga si données yooyu yow. no ay données globales lañ jox rek mooy li li ñu def ci conférence bi ak livre duñ joxe. waaw mais mais bu ñu fàtte ne ñi nga xamante ni bii. Hmm. ñoo ci doon liggéey ci buñ koy togg. début bi ba ci fin bi ak ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñoom je pense mu jëlee seen tableau de bord teg. Hmm. comparé. war nañ mën a xam fan la français am wala fan la leen ko wax ñoom ñu nañ ah ñun à partir d'ici lan jaa lañ gis ne différence am na en tout cas voilà waa Cour des comptes joxe nañ rapport de conformité si même exercice 2022 benn at rek moo desagum 2023 te boobu gouvernement bi ñoo tardé la loi sur la transparence li leen waxoon mooy 3 mois lañ am ñoom ñu ngi ko waroon joxe juillet ñu joxe ko septembre

voilà buñ ko remettre en cause légui li normal li nga xamanteni moy li wara a édifier tous les sénégalais ñi nga xamanteni dañ leen interpeller te yalla def na ñoom ñëpp a dund. mu dañoo war a toog seen i chiffres confronté wu. pour édifier les gens mais mais docteur parce que pour man. mais waa cour des comptes. magistrat yoy ñom politique ñu. ñoom li ñi def rek moy certifier lu wér peñ. te loi de règlement ak yoy ñooñu buñ koy liggéey après ñooñu dañ koy certifier. Euh, waaw xam nga mënuñu werante ci ci ci expertise magistrat yi nga wax non voilà mais comme ni ma la ko waxee rek encore une fois ay données la jox ñu jàngat ko xool conformité. mais ñu si yem ñoom de ñoom dañuy ah. ñoom am nañ possibilité ah. ñoom magistrat enquêteur lañ. chiffre fu mu ne yoon may na leen ñu dem vérifier ko. tout à fait man Cour des comptes moom vraiment man wóolu naa leen. waaw non kenn kenn sañul doute ci seen i mbir. ah man de ma voilà lu ñu certifié ñoom. mais mais encore ah. une encore une fois euh, comme ci li ñu wax daf ci am loo xamante ni bii déjà euh, partenaires yi reconnaître nañ ko parce que par exemple déficit bi ñu wax ak entraînement bi li ñu annoncé woon ak lële bokkul ça veut dire déjà mën nga jàpp ne kon lële aussi dut mën am ba léegi. non non non non partenaire yi waxuñu FMI li ñu wax mooy ñoom dañu ngi saluer le fait que gouvernement bi ne dafay dem vers la transparence ñu ngi koy saluer benn. ñaar langage diplomatique euh, waaw ñu ngi koy saluer langage diplomatique ñaar ñu ne déficit bi ren jii yaakaar nañ mu dem ba 7 pour cent te premier ministre néna na 10 pour cent la donc mhm. FMI weddi na ko mhm. parce que néna ko ren lañu lañu ñuy yaakaar ne ak nu muy détérioré nii doo doon du doon 5 pour yi ñu doon wax mais 10 mais 7 lay nek euh, ñettel ñetteel bi nak FMI néna ñu ngi xaar wa Cour des comptes certifié waaw waaw xam nga FMI ay projection lay def rek gouvernement bi dafa am ay chiffres am def ay projection donc man bu dente ne dem naa bay bay bay jox crédibilité mënu ma jox crédibilité projection FMI euh, bañ ko jox euh, bu gouvernement du Sénégal ñu xaar cour des comptes léegi voilà premièrement mais bu le déficit bi moom mën nga xa mën nga mën nga bay après ba ba ba feneen parce que yëpp ay projection la. waaw waaw léegi kon nañu xaar cour des comptes parce que projection bu FMI. mengowul ak bu gouvernement. président te premier ministre limu wax moy moom projeté wul de dafa ni déficit bi jall ni 10 la FMI ne non du 10 li projet projeté pour ren jii 7 C'est cent. la fi wax mission bi Edouard Samaël. si si donc premier ministre li mu wax FMI wedd bon mais encore une fois dama ci revenir encore euh, dama ne man bu ne ki nga xamante ni bii moo yore ay ay ay ay ay ay chiffres am ay techniciens yu ministère de l'économie, du dañ ministère des finances avec ses propres conseils ñëpp aussi nekk ñu xarañ ci économie nekk ñu xarañ ci mbirum statistique bu dente ne dem naan ba def seen simulation ne la ñun lii leen jàpp pour l' instant faw ñu am ko leen arbitrer. mais du neex je suis d' accord parce que pour l' instant premier ministre moo waxagum. te premier ministre politicien la waxu politicien la ñu amagum amaguñu certification technicien cours des comptes technicien waaw mais bu la ne bu la bu la ne politicien la kenn parce que chef de parti mais aussi n'angou ko technocrate là. ah waaw d'accord <laughs> mais mais mais boulot loo technocrate technocrate man ah. preuve la soxla. te preuve moi, loi de règlement. Mhm. ak compte certifié. ak rapport de euh, conformité. voilà il faut ñu xaaral loolu kon ba mu rek. mais mais ba 2022 mon, cours des comptes nee gongo. 2022 dans tous les cas man mon, franchement mënuma jox crédibilité FMI bàyyi gouvernement du Sénégal. d'accord voilà donc léegi nag comme am na koo xamante bi moom dafa neutre. te day travail ci ci chiffre yëpp te am na possibilité gëstu. waaw muy muy cour des comptes. waaw léegi nañ ko nañ mais léegi docteur docteur cour des comptes nee na ba 2022. mille vingt mhm. lépp nice. bon waaw gis nga rapport de conformité bi. bon xam nga euh, loolu. na nangu d'accord nañ ko. voilà léegi ki nga xamante bi neel na carrément entre 2019 et 2023 amna ci lo xamanteni bi mom ci boppam boko interpeller waral ma la exactement wa mais gisaguñ ko mom benn joxaguñu preuve ñaar cour des comptes wé dina voilà donc on attend on attend on attend 2023 mais entre 2019 ba 2022 cour des comptes wé le premier ministre parce que nee cour des comptes génn na rapport de conformité né fofu yëpp gongo donc 2023 donc lañuy xaar premier ministre bon mom mënoon na muñ tuuti xaar bañu certifier compte yëpp mo gën mu yàq sun dernier nii dañu dañu mal falsifié ay chiffres euh, ñu ñuy wàññeel ay ay ay ay notation ak di ñu yokk sunu ay taux d'intérêt vraiment premier ministre tooñ nañu <laughs> tooñ nañ de docteur parce que économie du yow laa koy wax mhm. économie sensibilité wu information lépp la fa xam les marchés restent extrêmement sensibles aux informations. très nerveux. voilà <laughs> les marchés sont nerveux. Euh, mais xam nga information parfois euh, aussi aussi le principe du marché bi Moi, le principe de transparence C'est fondamental Moi, une information parfaite. Tay pure et information <laughs> Wow, illusion <laughs> voilà bu dente marché donne na information surtout bu information bo xam ne pas favorable automatiquement day replier

waaw xam nga doon na doon na gën a yomb. doon na gën yomb bu doon bu doon bu doon. bu doon gën doon na gën a yomb bu doon eh, kii fi jóge